mais ba léegi ñoom ñëpp kenn bokku ci. man damay félicité nag waaw damay félicité seen courage boobu ñu def ber benn beneen bi moom mooy dinaa ci dinaa ci ber kenn ku mel ne Amadou Ba. Mhm. li tax ma koy ber mooy xam naa ni moom ci dëkk bi te boobu ba léegi ay wax laay dégg rek te man wóor na ma ni bu fi toogoon deful dara deful politique deful dara mën na dund dundal njabootam te kenn du ko fi woo. Ah. man loolu xam naa ko. waaye lan moo ko poussé moom. ba mu du ma wax rabaissé ba mu ñëwaat ci langue politique bi. Mhm. di insister ci économie. Mhm. man discours am man damay man damay déglu discours. Mhm. discours Amadou Ba yëpp il parle d'économie. te te te ni mu koy waxee. mooy mooy da mooy yaa de quoi nag avoir peur mooy ñun nañ tiit ndax fii réew mi toll ak ni gars di def nii mënuñu. bërki démb dafa am benn dafa am ay partenaires yu ñuy wax Aqua Power. saoudien yi. manam pour projet de désellement. Mhm. ndox mi pour mu dougat Dakar ndax la de guerre dafa commencé sonn. Mhm. Macky Sall la teg vision bobu muy lu muy lu pertinent sax. Mhm. léegi gars yi dañ ñëw rek résilier contrat yi. léegi ama grande surprise ma gisaat manam président demaat fofu encore. ne dañuy renégocier waat contrat yooyu. mais ñi kan la ñëpp. <laughs> te li si garaaw mooy dama lay wax de <laughs> manam gis nga gis nga gis nga dëkk bi li fi am. Mm. dégg naa ñu wax ci benn MOU mooy memorandum of mhm. understanding mooy mooy memorandum d'entente kese ñu mel ni ku projet bi pare na maanaam ndox mi day waa jógee la de guerre dem Touba ñu tuddee ko DMT nag def ko la grand nag nee nañ xaw ma le grand transfert d'eau <laughs> mais yow Dakar la de guerre da koy sonal nga bëgg yóbbu la de guerre ba Thiès ba Mbour ba Touba. ba Touba ko defee ñun duñu naan. mais mais mais assèchement lay indi ci lac bi benn at rek pluviométrique te man dama bëgg naa poser benn question sax. Hmm. mooy nguur gi parce que dama gis ni boobu ba léegi man bi ma nekkee xale ba léegi nag lii xew Matam nii suma koo gis mm-hmm. ci ndox mm-hmm. xaw ma lu ko waral mm-hmm. man man bëgg naa ñu ubbi enquête ndax taw fii taw boobu waaw bu fekkee nag phénomène naturel la ñu xam mais lii man maa la ko bu doon dëkk tubaab bi loolu c'est naturel loolu c'est naturel parce que barrage bi. barrage bi waaw c'est vrai que nag prévenir woon nañ leen. voilà prévenir woon nañ leen. léegi xam nga mais loolu moom c'est naturel. xam nga xam nga man xam nga man lu garaaw xam nga lu garaaw ci samay samay samay analyse des fois mooy damay topp gars yi. dama yàgg gis ay phénomène naturel di am ñu koy jiñ état. ne incompétence état la tey ñu taxaw ñu ne loolu phénomène naturel la. ah léegi ñu ne ñoom maanaam ñun du ñu ñun amuñu droit xalaat wala amuñu droit poser des questions man maa wax loolu man Seydi Bamba maay ñaan. bu fekkee am na experts yu mën a wax. lan moo waral loolu. ndax ba ah, ci nañ ko di même bu ci nekkee même mais man li ma dégg nii. ah hmm? doy la <laughs> doyu ma de. bi moo moo moo moo kii euh, moo daanu après ndox mi yooyu doy la. non ma loolu. ah catastrophe naturelle la nag de. ah waaw waaw baax sincèrement wax dëgg yàlla catastrophe naturelle na mënoon nañu jël les devants. puisqu'ils ont été euh, euh, prévenus. bien ko ñii moom. moo la ko fee Je man mënu ma leen wax ci affaire réalisation. Mhm. man ne lu xew ci dëkk bi mënu ma leen ko jiiñ. Mhm. xam nga la je mhm. dañ fay Je bu ñuy dara. Ah. waaw motax mënu ma leen jiiñ dara 7 mois 8 mois. waaw ma leen dara non ci xam sax yow mairie ni ma wax ak yow. parce qu'ils ont parce que tamit dañ leen fal te amuñu won amuñu ben expérience. amuñu ben compétence. Ah, ah. te ni ma wax la bu ñu leen mairie sax dañu am problème bo waxuma la état. <laughs> d'accord dafa ñëwaat ni di wax <laughs> moom moo xam ne gars yi mënuñu dellusiwaat yow euh, léegi léegi ndax euh, euh, ñu jëm ci élection législative mu war nekk décision bo xamante décision bu fort la war nekk Sénégal parce que fi la ñuy fii la ñuy jubbante wala ñu jaaral dëngale Sénégal ba léegi que ça soit mu nekk régime bi ñu jël ko que ça soit mu nekk opposition bi mais man fa la la interpeller mo nekk assemblée nationale c'est-à-dire ñun les les les les habitants ñun population bi war nañu xool ñuy ñu ñuy tànnaatee ñi nga xamante ñoy ñooy ne ñoo assemblée parce que aussi assemblée ña fa nekk euh, askan wi lañ fa nekkal. projet de loi yi ñu fay voté député Sonko la mais c'est ça askan wi lañ fi nekkal légui suñu sukkandiko ci euh, ci euh, dernière. qui bi quatorzième législature c'est ça mhm. ñom

jàng nañu mën nañu euh, euh, représenter askan wi foofu noonu mhm. est que jotul ñu ñu def loolu parce que tamit assemblée la fay nekk tamit doy na waar de xam nga yow da ngay jël mhm. benn ndaat def ko député surtout loolu ma nekk fa xamul lu muy signé lan la dañ ko naan rek yow waxal wii mu ne wii non mu ne non am na ñoo xam ne wii neex na xam nga duñ fa nekkee dañuy tëdd nelaw bu voté voté pas nelaw kii s'abstenir lan nga lan nga lan nga xalaat ni war na li nga ma jël exemple métti na ma tax jëloo sayit waaw nga xam ne moom parce que man maa gën a ba yor kayitam moom dëgg non même pas parce que kii dafa jàng non même pas yow la bokk mm. waaw ñii dañoo la de <laughs> a waroo a dëgg non même pas moom d'accord naa <laughs> non waxee ma ko foofu non waxee ma ko parce que moom mi suñ ko falee yóbbu ko assemblée nationale je suis sûr que atelier naa ñaar ñi wax dëgg yàlla nag <laughs> ndax fayu na ndax fayu na parce que dañ ko wàcc cabax bal mu metti ma tool maa baye sama rakki way fi mu nek mo fay na aller retour alors non xoolal maa moom du ñu am benn ki problème parce que voilà c'est mon frère et voilà en tout cas xoolal euh, man 14e euh, législative bi xam nga dañoo fee amoon benn e législative bo xam ni mhm. ñu bari dañu naan c'est catastrophique ak ñoom seen mhm. euh, mais 14e c'est pas catastrophique de mhm c'était euh, xaw moo bi exact nan la ko meuna a waxee qualifier voilà parce que euh, da ngay xol euh, si li nga xam ne vote de budget c'était du n'importe quoi yo la ngay gis benn député bo xam day taxaw wax da nga naan exactement lan la wax man déjà am na ñoo xam wax dëgg fa duma du leen sox deglu mhm. billahi dañuy damay seetaan mhm. dama doon tànn ñi nga xam ni dama leen doon déglu mm-hmm. si nga xam ne ni mooy mm-hmm. député yi man dama doon tànn am na koo xam ne nag dama ko doon tànn di ko déglu mm-hmm. et fu mu toll nii bett na ma benn bett boo xam ne je suis désolé parce que dama ne woon moom moo nekk député de la nation moo nekk député dëkk bi député peuple bi buy intervenir fu ma lu ma doon def dama koy bàyyi toog di koy euh, déglu le Guy Marius Sagna tamit. waaw tudduma tour mais tay kooku tay gis nañ né euh, c'est diamétralement opposé l'olé du problème sénégalais xam nga lan la. Mm-hmm. ñi nga xam ni nii ñoo jël seen liste léegi législature xam nga lan la ay guerre la. Ah, ah, boo amé assemblée voilà so Amé assemblée mm-hmm. euh, bële euh, majorité yow di nga xam né so ma falé tay ji man ndaak ma nek ma ñu taxaw taxawaayu sa député. lu ñeneen ñi wax loo bëgg laay loo bëgg laay def loo wax laay wax voilà mhm. Mhm. te xam nga ku la fekk nga nekk si euh, mbedd bi di jaay ay mbuusu garab ma cent franc di def ay live tiktok mu yóbbu la def la député ah, avec salaire de non waxuma ko <laughs> eh, eh. non ah, non exemple laa jël mais yow dina ma dugal de dina ma dugal dina ma dugal mu may dugal yaa ko wax de garab garab ngay wax mu may dugal eh man garabu man sama maam day jaay garab. waaw yow yow man de ma bàyyi fëlatal ba nga ba nga préciser nga indaat a garab. ah ndax am na. non non xam dafa saf xam nga <laughs> <laughs> xam nga ñooñu. ñu xam nga ñooñu. soo leen jëlee euh, teg leen ci assemblée bële. nga ñëw euh, daanaka ñu nar a li nga xam ne ay projet de loi euh, sincèrement wax dëgg fa neex yàlla. waaw rek la ñuy wax mhm. yow même su bonee sax waaw la ñuy wax te gis nga dafa am loo xam ne nii euh, du ñu euh, c'est pas pour rien ñu naan penc ndaw réew yi mënuma mhm. mhm. fa dem mënoo fa dem Saïd mënu fa dem euh, député bi nga xam ne nii moom lañu falee ci sa département moo la fay taxawal man gis naa benn député boo xam ne man je salue li nga xam ne nii moo di liggéeyam bam euh, Casamance la dëkk mais département de Dakar lañ ko fale mhm. mu dem euh, bokkoon ci treizième législature ba mu fa demee mais kooku amul loo koy reproché amul benn même tey li nga xam ne nii moo di Pastef amul luñ ko reproché. Mhm. et xam nañ bu baax ko may wax Mm-hmm. mu di député Moussa Sall. amoo loo koy reproché. Mm-hmm. et pourtant il était il était de l'opposition. mais tay euh, buñu gissé yow euh, da nga nan Koura Macky ak li ak Koura Macky bien sûr Koura Macky amna ño xamné sa mo sax leen fa ëppoon jeriñ mm-hmm. ndax ñoom abstenir rek lañ fa nekkee woon lay wax ci sama bàjjan de. man mi tamit xulona ah, naa. dégg ma la rek bàyyi ci dem dama kaa woo mu ki ak man Ousmane Sonko mu yor paaka di ko dàq. di ko bañ ma nit ma gént mu yo paaka di ma dàq. <laughs> te dafa nangu paaka <laughs> mën na ko jëm ah? voilà daneen dafa nangu paaka bi léegi euh, nga gis loolee euh, mu nekk loo xam nit ñi dañ koy déplorer mm-hmm. lu tax ñu tas assemblée nationale parce que bi Diomaye toogee tak nga dégg ñi nga xam ne ni moo di sénégalais waaw septembre nañu dissoudre assemblée nationale ñi fa nekk nii mais liste yu bees yi nga gis à l'image de liste de Pastef am na ñoo xam ne suñ demee assemblée nationale je suis désolée xuloo lañ fay nekkee xeex lañ fay nekkee parce que bii passé amoon na ay mbéjante ak ñoom. kan la sax mais bii am 165 député <laughs> bu mu fa demee d'accord dina nekk loo xam ne nii euh, dina doy waar lool ma ñëw nag ci li nga xam ne nii moo di opposition bi dañoo am opposition ndax naa sànq benn kii lañu am benn système mm-hmm. Mm-hmm. mooy système des hommes politiques Barthélémy Dias moo fi àndoon ak Ousmane Sonko ñi koy jàpp muy xataraayu Bougane Gueye Dany pareil euh, tey ñoom ñoo ñoo taxaw fee ne ni ki manipulateur la ak ñoomi seen ba tuddee ko Mimi et que Black ah, Dembou ñoom ñoo doon mais man euh, li nga xam ne ni mooy sama problème et man je voulais attirer l'attention des Sénégalais un mhm. peu moo intercoalition dafa doy waar li nga xam ne moo daloon Yewwi Askan Wi ca Mbour ngelawaay bu mu dal l'intercoalition mhm. jàmm ak njëriñ takku wàllu sàmm sa ici à Dakar Et en plus li nga xam ne moo di euh, sàmm sa kaddu retiré nañ seen liste départementale bu Tamba je suis pas sûr que ni <clears throat> mais foofu aussi balaa message bi di jàll mais tey moo nekk la kañ sax déjà tey du le 6. Mhm. tey la le 6 balaa message bi di jàll mais euh, le 17 soreetul et gis nga euh, li nga xam ne moo di surprise mun na am à tout moment ci élection yi ñu jëm. Mhm. élection yi dañoo war a jël ay décisions yoo xam ne comme ni ko ñu bëri di waxee dañoo nekk si buntu teen. Mhm. soo am na benn côté boo xam ne boo leen fa dugg si biir. am na benn côté boo xam ne nit ñi bu ñu fa penché peut-être dinañ reculer d'un pas. même si bu nekkee sax duñ génn si guuta

treize député da war a liggéey. vraiment. treize député sax boo ko amee da war a liggéey mais ki nga xam ne ni dafa basé wu ci majorité laa bëgg pour liggéey et gis nañ li nga xam ne nii moo di euh, ñoom seen euh, bépp argument mooy nañu am majorité euh, topp ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ci régime bi mu ne mooy à l'image de haute justice boobu ñuy dégg li nga xam ne moo di opposition bi bëgg ñoom tamit majorité pour liggéey la ñu wax.

cinquante yi kenn ku ci nekk jox leen cinquante milliards maanaam ñu def haute cour jàpp ko ñu génnee si compte am cinquante milliards. Mhm. xam nga loolu mënul nekk. Mhm. mais loolu boo ko calculé di nga dem ci ay deux mille cinq cent milliards. Mhm. deux mille milliards mënul defar réew mi bu ñu tëjee dëkk bi. maanaam yow li nga bëgg ne. li nga bëgg gëm gëmloo nit ñi ne mooy tax nga développé dëkk bi. loolu xaalis boobu ba existé woon sax mënoo ci defar dëkk. dëkk kenn du ko defar ci jamono ji ñu toll. ci ay mm-hmm. affaire daal xaalis bu nekk fii ak. Mm-hmm. wala ñun ñu nga bës ñu mel mel ne ay limon ñun amatuñu sax ndox bu ñuy génnee. Mm-hmm. nga bëgg ñu teg benn affaire bu diis pour ñu génnee xaalis nga ne da defar dëkk bi loolu mënul nekk. àdduna dafa dox maanaam li xewoon ay Chine démb li xewoon feneen tollatuñu foofu dañoo toll ci jamono boo xamante ne maanaam ça va vite. te man ñi ma gis nii dañoo bëgg refaire le monde et c'est pas possible du tout. mënuñu te bis buñ leen joxee. majorité bi waaye waaye yéen yéen ah, Saïd mënuñu mënuñu bi ngay wax ni man de samay wax lu muus la maanaam dama ko xam parce que xam nga tey jii am na ñu bëri ñoo xam ne boo leen dëkkoon micro ñu wax seen aqulaay taala xam nga mosoo dëkkoon la réew mi avant réew mi arrière mhm. am na yoo xam te réew mi arrièreaat benn pas ñu nekkoon si li ñu nekkoon moo leen gënal fuuf réew mi di avancé ndax xam nañ ni buy avancé ñooy dugg si teen bi li ko ni ko ko waxee mhm. ah, waaw ba doon dëkkoon micro léegi-léegi nga laaj leen seen aqulaay taala waxum waxum ñëguñu hmm. ndax Pastef yàlla dana may loolu booy dañ ñëg booy instant yi bu ñuy sonn sax bëgg naa ci g benn théâtre sax man may def yooyu jël ma naa ko naa ko def di signe rek nag ñu fekk dee ku ma